Uh-huh. borom bi kum lañu doon weerante di ko laaj te di ko laam-laamee mujj naa leer naññ Ablaye Wade nee na du jàppale benn candidat ci wote yi di ñëw PDS xamul plan B waxuma la ak plan C Karim Wade su bokkul ci wote yi wote du fi xamee man Wade loolu la wax waaye ay jàppale ma Samba ma Demba nekkuma ci loolu de Les Échos yéen ne kaay ñu ko xamal Libération mel ni ku naan ko Ablaye Wade kon dana la wóor ne sa parti bi PDS bu tasee yaa ko tas aa seetal am na ci ay responsable yoo xam ne li ñu jàpp mooy fi mu toll ni leer na ne Karim mënta bokk kon nañ ut kuñ waaye toog ñàkk bokk ci wote yi parti bu toll ni PDS loolu baaxul si ñoom exclusif yéen ne man sax sama xel mi dafa teey gis ngeen Ablaye Wade mii fa mel ne Macky lay liggéeyal ndax lii muy def nii fay tax Macky jotaat ci nguur gi ndax bu waxoon ne waa PDS yëpp woteel leen keneen ba mooy Macky sax loolu xel mën ko nangu waaye yow ngay opposant na doo jàppale bi ñu ne déete génn alxamis bii di ñëw teeru Ablaye Wade ci mbooloo mu bari source a yéen a kaay na ko Ablaye Wade ma sàcc nettali la ne Macky Sall gaaruwaale na la gaaruwaale yu métti a yaw seetal Macky daal moo taxaw ñëpp di ko dégg mu ne Abdou Diouf kooku homme d'état la ku matoon njiit la ndax moom nangu na dogalu yàlla bi mu jeexalee nguur ci moom fa toog noppalu waaye ñama xam ñoom fa mel ni gëmuñ yàlla source a ko dégg nga de dégg nga Macky xam nga ne yow lay ko na ko jaaral ci digg bi Macky ko bàyyil ci ba pare xalamal Abdou Diouf l'observateur na leem kàddu yooyu yëpp nag Macky ma ngi ko yëkkati ci ñaareelu fanu campagne am bi ca diwaanu Kébémer Louga jàpp ndar yéene kaay bi nee na Macky neexut ba neexut wana na dooleem ndax mbooloo ma ko topp Kébémer kenn xamu nu mu toll ci bëri waay fépp fu mu jaar ndiiraan nga topp ko mbooloo ma tar ko Macky yaa bëri doole Macky yaa fi ne rek ngay dégg moom njiitire Macky Sall wane xel mu dal ci na day am ndam boole ci di fecc ak a attaqué opposition bi rawatina Ousmane Sonko na Sonko xam nga lu mu bëgg nga xam fekkee fa ngaa foog ne jaar bi Facebook yeeg WhatsApp yi moy tax nga yor rew mi gañ élection yi fa ngay nelaw yew nak nga sa bop bu fekkee tamit wax lu du deug ay sos ci ay xaliss ak diw def na li def na lële non lañu yoré rew réew nak nga sa bop turbine yene kay ne ñaareelu fanu campagne bi kay ay dige yu du xaaj jeex la ci seetlu ak ay songante attaqué wante ay yow seetal maki nee xam rew kenn du ko yor ci wax lu du deug ak sos Ousmane Sonko nee bu jëlee rew mi nguur gi limay dundé fañ koy wañi ma dikka ñang ne man suma ma rew mi jëwriñ ci yor walu bi rew mi ak jëwriñ ji denk walu justice duñ far ci sama parti fa ñuy maandu Issa Sall bu pur nee na moom fay fexe ba yemele ñaari pouvoir yi 24 heures yéen a kaay ne Ousmane Sonko nag tàmbali naa wane jafe-jafe ci wàllu xaalis ndax bi mu bëggee dem Kaolack ndangaan fa am problème bu biis oto ba mujj gi sax journaliste yi yi waroon a ànd ñu bëri demuñ Kaolack ka yàgg tiwaawoon nag jàpp ndar mooy Macky Sall ci mbooloo mu bari si du quotidien ne waaye Idrissa Seck tamit département bu Thiès fa koo wàccee mbooloo mu bëri bay tuuru cana ba moom idi fa ko toj Issa Sall moom fexe na ba Jamil ñëw di ko jàppale demoon na seeti tamit Khalifa Sall ko moom moom it wàccee na Kaolack ndangaan ni ki démb ci mbooloo mu bari naka noona tamit diwaanu géngi neew la Soleil yéene kaay ne Ousmane Sonko dig na waa Kaolack ne am na saafara ci seeni jafe-jafe ba suqali diwaan ba kon nañ ko woteel fal ko président ma dikka ñang nag moom ba léegi ma nga woon Touba ak la ko wër vox populi ne man li ma seetlu mooy gaañi seen dënn yaa ngi tàmbalee jóg ñu ngi attaqué wante Ousmane Sonko nag nee na Macky fa jël moom xëy critiqué Youssou Ndour ne moo dàq combine bëre ci boppam rek la ne fi mu toll nii fent ay woy ngir neexal président ci la nekk ay wër ndoom ba xàll yoon ak boppam rek lay xàllal ki xàllal tey Issa Sall ngir wax ñu mooy kan mooy yéen a kaay bi di enquête Issa Sall bu pur nee na ma nga juddoo taata gin nekkoon na diwaanu Ndar ak Dakar laata muy dem Amérique ku ràññee ku la woon ci def lu baax seede yu rafet ay jege ñaaleem def nañ ko ci yéen a kaay bi tàggat yaram sunu lamb yéen a kaay moo xëy di laajte ne combat Eumeu Sène Balla Gaye 2 wala Eumeu Sène Modou Lo ban moo ci gën a neex ak ban lañ war a taxaw taxawal ñi ëpp doole nag ci yéen kaay bi nee nañu suñu waxante dëgg combat bi gën a neex te amateur yi soxla ko mooy Eumeu Sène Balla Gaye 2 te loolu sax moo normal l'observateur moom di ñu xamal ne accident bi ma leen fi waxoon démb soxna sa doon dawal oto ba saaraar tampon garab ga ba ay doomam juróom benn doomu adama faatu woon ca te yëf yi amee ca Sicap Amitié tey nag yéen kaay bi ñaar ña nekkoon ca diggante dund ak dee kenn ka mujj naa faatu